Mhm. moom moo ñàkk bakkanam waaye na mu ñàkkee bakkanam noonu moo metti ndax xam nga nawetaan dañ leen ajoon bi ñu leen ajee final yi ñu ko doon joué mhm. bi ñu joué ñoom seen équipe gagné xale yi génn di jubilé comme ni ñu koy faral di waxee ñi gàmboo ñi raas dem bokkuñu am na lu sa xew ba doomam ñàkk si bakkan gannaaw bu ñu ko dóoree bal si gannaaw mu nekk lu metti lool démb demoon nañ ko seeti ji ñu dem dégg ju pa Ibrahima ji bu ñu dellusee déglu yaay jeeg frère bi incha allah gën ko yaatal ndax doy na war lool. ngir mu dee mu demee métti la def ndax jàng métier yàlla dogal mu seen équipe bi doon football équipe nawetaan bi doon football ñoom seen équipe bu koñ bi yàlla def ñu gañee ba ñu gañee nag lañuy ànd ñoom di sible ciblé doxe doxee Pikine ba fii dañuy ciblé baak si koñ bi daal si koñ bi daal la la la problème bi daal di am waaw ah, problème bi guur bi ñaand loolu noonu dafa benn boy bu tudd maam Cheikh bu nekk si gaaru Alaaji Faate bi ñu dafa dafa agressé ci portable trois portable benn waay kalaame ku gars yi ñëw jàpp ko bu ko sànni ñu jàppee nag mu ni seen booy koñ bi yéen xanaa du ngeen góor yàlla ngeen bàyyi ñu may ñu may yóbbu noonu nee na xale yi daal riposte jël xeetu sànni te ak fekk ñoom ñu ngeen seen commune discipliné di ñëw ba ñëw ba toll ñoom ci jumaa ji rek ni gars yi aletu ñaari bal ci kaw ba ñaari ñaari bal ci kaw sànni benn ba bi jaar dem rek ñu sànni bal seen biir ñoom bu ñëw dal xale sama doom ci pied gauche bi la ko dal ci gannaaw dama pooj bi waaw noonu daal laa fa noonu laa ko soo mi sama doom sànniwul xeer bokkul ci kuy jël moom boo diggee koñ bi rek mën nga man leen seedeel luy jukkoom dafa añ fi pare dem sa match bala demoon football ba ak ñoom nag ba ñu àndee ful bi di ñëw nag la àndoon di ciblé ñu ñëw ba ñëwee ba foofu nag jàpp booy boobu nag ba gars yi alertoo ñaari bal ci kaw ñoom ñu daw dugg ci mbeddu karo bi ñu dugg ci mbeddu karo bi rek waaye ni ko sax tiir seen biir mu tiir seen biir jàpp ko ci pied gauche bi ñu ci gannaaw pooj bi damm waaw yàlla ñu ko dóor waaw war ñu ko tiire ko ku yor armée comme yow di xeex ak yow amuloon tiire ko bal réal ba ñu defee alerte ci ko xale yi daw amatuñu waat tiire amatuñu droit di tiire seen biir waaw foofu faute bu rëy la ñu fa def léegi ba ñu ko jàmmee nag yóbbu ko hôpital Kër Massar ñoom ñu mën ñu ko faj ñoom ñoo ma am waaye ma demal camp Thiaroye ñoom ay boor yi boobu léegi ñu ngi jot boobu mu ngi ak wenn trois man da ba ma koy départ di ko man ñu ni laa ko jële man fii si hôpital ba dem ak moom camp Thiaroye ma xool ko ñoom mën ñu ko faj yowal ma CTO euh, ma dem seeti woo seetu ñu amuñu place amuñu lal ma nga ne foofu ñoom ñu envoyé ma principal ma ne principal ñu ne amuñu lal daal di may envoyé bopp nga faan boo ñëwee faan ñoo ñëw te mënuñu ko faj ñoom mënuñu ko faj mais nag du ñu bàyyi xale bi ne du ñu kuulee ni métti na il faut ñu arrêté deret bi ñoom ñoo bi piqûre ko tétanos defal ma rajo tànk bi daal ma yebal ma dem géejawaay ma di géejawaay ñoo tam ñu amuñu matériel bu ko mën a fajee wala ma fële wokkaam waaw waaw ma dem foofu wakaam ñu ma xool ko ñu ma kii dellu il faut nga ñoo ko war a faj ma ne ah, ñoom ni ñu amuñu place ñoom ñoo ko a faj ñoo war a génne ay bal comme bal baa ngi tàng ñoom dawal foofu ci ñoom kon li nga doon wër bal bi mu ngi ci tànk tànk xale mu ngi ci tànk bi génne wuñu ko boo ñëwee man mënu ma yow dama ne la amuñu ne ko waaw mais dama bu mag bu ne Dakar taxoon naa fi ah, ñi amuñu lal ñu ko faj ñi ma yéen yéen a ko war a faj ma ne ko Fane defal na ma sax rajo kii yaa ngi ni ma wax xool di si ma xool mu naan ma xaaral ma ñëw daal di dugg si biir ni ma wàcceel xale bi daal di ma wàccee leen jëkki woon dafa ne amoon bu ñuy téléphone ba xool naa ma ne ko naa jënd mat la mu ne mat la du fi dugg sama soxna si ne ko naa jënd basan mu ne ko basan ma ne ko da nga ne kon yóbbul xale bi mu dee benn yoon loolu nga ma wax bon mun teg daal ni ma koy ma jox ko mu dugg si biir xool daal di wàccee leen ko ñu wàccee ko ba ñu ko wàccee teg ko ci puus puus boobu 4 heures du matin la fa maa ngi def ci hôpital ba 4 ak bi ci biir léegi ba ñu ko wàccee foofu ci principal ñu teg ko ci benn puus puus dugal ko biir puus puus dañu ko bàyyi ba bët set muy 4 heures du ñu bàyyi ko bët samedi ba 6 heures ci ngoon lañu ko la toog ba 6 heures ci ngoon lañu ko door opéré mun ko sa tegaat bët ba ñu ko opéré samedi noonu day nelawaat ba ajuma del ci mu faatu yeewul waaw ba ni mu faatu yeewul lu doy waar loolu la dal ci góor googu doon wax sànq muy Ibrahima kànji moom doomam jooju Talla Kandji nga xamante ne moom moo ñàkk ba kenam ci anam boobu mu nekk lu métti lool lool li mu ci li ci gën a remarqué wu nag mooy gannaaw bi ñu ko jamee ba pare minuit ba 4 heures du matin ñu ngi wër hôpital. hôpital bu ñu dem ñoo leen dañu fees hôpital bu ñu dem ñoo mën nañu ko laal di wër ak moom di wër ak ñoom ba ñu ñëw ba principal principal leen ñoom tam dañu fees duñu ko mën a jël ñu demaat fànn au lieu que hôpital yi ñu dem yëpp moom li muy dénoncé au lieu ñu dem yëpp mu am sax ñu ko jël def premier soin yi mais defuñu ko fan moo mujj jël def premier soins yi neen dem leen principal parce que comme affaire militaire la ñoom ñooy dindi bal dem leen ñoom lañ ko dindi ñooñu ñun fa lañu jugee bi ñu fa demee neen duñ ko jël fan leen demaat leen foofu fan nag ñoom ñoo calmé affaire bi arrêté deret mais xoolal boobu minuit ba 4 heures li mu perte si deret bëri na léegi bi ñu demee. kooku xam nga ni buñ ko jëloon à temps ko sauver. mu ngi noonu parce que bal bi léegi fan moo mujj arrêté deret bi fej ko def premier soin neen delloo leen ko principal. bi ko delloo principal nag ñoom waa principal ci boppam bi mu ñëwee papa bi mu ñëwee ñu ne koy ñëwoon nga fi sànq ñu ne leen ko jël ndax dañu fees mu ne leen. dañu fees papa ji neen kon ma jënd matelas ñu ne ko matelas du fi dugg yaay ji ne kon ma jënd basang ñu ne ko basang du fi dugg papa ji papa ne ko yóbbu ko papa ji neen kon loolu mooy yóbbu ko mu dee du ma ko yóbbu nee na kooku ne ko indi kayit yi ma xool bu mu indee kayit yi mu xool mu xool ba mu yàgg daal ne wàccee leen ko bi ñu ko wàccee teg ko si puus puus bi si puus puus boobu ñu ko teg si lañ ko teg minuit nee na ba sa ëllëg sa 6 heures du matin ba sa ëllëg sa 18 heures 4 heures du ba si ëllëg sa 18 heures si lañ koy doog a laal opéré ko dindi bal bi mu piqué crise nekk dans le coma une semaine ñu dem déglu ju frère bi ak yaay ji mu nekk loo xam ne lu metti loolu waaw métti rek mu ko déggee ba bàyyi léegi daal moom métti rek ndax taala dafa amoon na taxawaay ji kër gi fi la liggéey xëy xëy xëy maa ngi liggéey fekk muy bokk natt fi muy liggéey ñu damay xëy liggéey ba pare natt doog a xëy doog a ñëw ba mu liggéey ba ñëw fekk kiit ñu ngi togg añ naa ko gaaw damay dem final bi mooy drapeau yi ngeen gis mu takk ni final bi la woon ñu ko doon defee Pikine final bi ñu dem na ba ñu demee na bay ñëw bu ñu duggee si oto yi nag ko noonu oto yi feese nag jigéen ñi war a dugg ñu xaaleen du jigéen ñi wàcc ñoom ñor kub bi nag di siwile di ñëw ba ñu ñëwee ba ca garage ba ci kii hôpital madame bi noonu léegi ku ñuy wax maam seex fii la dëkk ci garage alaj baat bi la dëkk léegi mu ay portable daal di jaxasoo ci seen biir léegi mu këf portable bi daal di dem déclaré ko gendarmerie ñu ñëw nag commencé di tiire ay bal ñoom ñuy daw di ñëw ñu dégg bari nag ñoom ñu daw kenn ki ni ko tiire ko ci tiire leen ko tiire leen ñu tiire ko mu bi mu daal ni gars yi toog yàq nañ sama àddina xam naa damay dee rek foofu nag deret du bare di civilé foofu deret du bare deret mi moo mu génne ci deret moo bare ca ñu yàq koo jël fekkoon teel nañ ko jël sauvé ko sax mën naa am bala ko posé nu bal bi dugg ak yooyu moom dana yàlla mën na def moom mu soobee waaye dañ koy yéex a jël hôpital bu ñu dem duñ leen jël hôpital bu ñu dem duñ leen jël waaw mu amoon taxawaay loolu ci kër gi canal bi bu daan kii ni moo ko daan fay su xëyee ni ma yaay loolu tëdd dangaa bëgg xaalis rek yow daal di yëkkati xaalis dugalam si ngege naa bi daal di xëy liggéey liggéey mi nga wàcc ay tibis yooyu dañ doon raxas oto fii guddi googu moo ko fanaane xoolee fii nelaw defuma ko làmp ëtt yëpp laa bàyyi di jaabante jot na man doog fi nekk ak sama goro yi ñun doo nga nekk ci ëtt bi bu bët set nelawuma suñu wootee rek ñu ni jëluñu ko suñu wootee ñu ni jëluñu ko ba ay 6 heures ñu doog koo jël. te mooy metti na te yëg-yëg gi mooy damaa liggéey ba wàcc ba war dugg si kër gi rek jékki-jékki ma gis booy di ñëw léegi bi ñuy ñëw ñu ne euh, ñu ne affaire bi jeex na waaye waa koñ bi ñoo ñoo gañu coupe bi ñu ngi jumbale di ñëw léegi ma toog tuuti rek ñu jékki-jékki woote fii ni taala euh, dafa blessé mi ngi si hôpital bi. ñu toog ñu blessé sama yaay ni blessé ma ñu toog toog benn instant ñu toog lu war a mat ay 5 eh, minutes eh, ay 10 minutes ñu woor ñu ñëw leen taala da nga ko jam ci tànk bi mi ngi hôpital Kër Massar noonu comme ni ko paa bi waxee rek ñu daal di jóg dem bi ñu demee ñu jël ko hôpital Kër Massar mënuñu mënuñu am matériel xam naa pour faj ko yu demee noonu tax parce que dégg naa ñu ni sax ci clando clando lañ doon wër pour teg ko ci jàllale ko léegi te kon léegi man daf maa xaw li tax mbir mi jaaxal ma mooy bi mu ñëwee ba euh, hôpital Kër Massar am na woon naa yaakaar ni waroon na ko mën a jël même bu buñ ko opéré wul ñu arrêté woon deret bi parce que booy bi li ko mooy deret ju bëri ji génn yaa bu ñu arrêté woon deret bi waaw loolu mooy problème bi léegi bu ñu arrêté woon deret bi kon loon kon action bi du demee nii mu demee yaa dégg mais defuñu ko ñu daal di jël naan xaw ma clando la ñu wër xaw ma lan ba booy bi jël euh, taxi bi dugal ko ci ñu yóbbu ko kancaar yi ñoom it defuñu seen liggéey ñoom it jàllale ko koo xam ne der jaa ngi sooteew nga yóbbu ko CTO euh, même chose léegi jël ko yóbbu ko euh, principal même chose ñu jógwaat foofu jàllale wàjju faan faan sax ñoom ñoo def seen effort mooy ñoo fexe ba arrêté der bi mais bu doon tey ji faan moom moom mooy fu njëkk woon si booy bi kon booy bi ni mu demee nii du ko demee kon mën na am sax ñu ni xanaa tànk bu yàqu la ñuy wax yu demee noonu mais kon du demee nii mu demee mais man li ma gën a metti ci mbir mi mooy négligé bi négligé xale bi léegi mel ni ñun Sénégal dafa mel ne léegi dafa mel ne ay mala ñoo nekk ci réew mi parce que yow boo nekkee ab euh, jullit ak loo mën a doon sax ak ku dul jullit jàpp naa ni ab doomu aadama boo xam ne si yàlla moo ko sàkk sàkk la dalay lay leer ni kii ñëw fi tey bu doon sa doom la doo ko bàyyi mu dem bu doon sa rakk ko bàyyi mu dem bu doon sa mbokk la du sa rakk du sa leneen mu leer na sa mbokku deret la doo ko bàyyi mu dem yaa ngi dégg mbokk la nag ci biir mbokk sénégalais gi mais nag mbokkoo woo ñu ñoom mbokkoo ñu bu ñu bu doon bokkoo kon dina fexe téye seen doomu réew fexe ba sauver mais defuñu ko. waaye gis ne mu nekk lu metti lool lool lool vraiment ñoom famille Kandji boobu nekk sa Kër masaa euh, euh, quartier El Hadj sant yàlla 2 mu nekk lu leen dal nag lu metti lool Aïcha. Non, mais je suis désolée de le dire, mais lii c'est c'est non-assistance à une personne en danger man noonu laa ko mën a tuddee. parce que je pense que xale bi buñ ko assisté woon. Euh, defal ko les premiers soins jël ko sax lakk laay wax. Mm. Euh, je pense que il aurait beaucoup de chance. pour survivre cinq hôpital la wër. léegi nag. Mm. si ñoom am nañ droit porter plainte nañ porter plainte parce que lii du yoon. man de pour man lu ma ko gisee moom mooy. Euh, y a des forts et des faibles. Mhm. Sénégal su fekkee ne tu as les moyens. da ngay régler tout simplement say problème. su mhm. fekkee tu es faible nag moom boo kenn du la lijjanti parce que bon et puis vingt ans. Mhm. comme ça. Euh, nga am problème gendarmerie euh, ñu dóor la bal nga dem si hôpitaux yi déjà problème bi moom mooy gendarmerie waruñu woon dóor bal je suis désolé de le dire su mhm. af problème su amee nañu xool ni ñu mun am nañu ay bal blanc wala ñu euh, ay lacrymogène pour pour disperser foule mhm. foofu moo nekk premier niveau bi deuxième niveau bi nga dem si hôpitaux yi dernière fois comme ni ma la ko doon waxee Aïcha tout à l'heure mhm. dernière fois fii lañu invité benn waaye benn syndicaliste loolu amul quoi soo dem hôpitaux boo dem da ngay dem ñu jël la balaa ñu lay laaj ay euh, balaa ñu lay laaj xaalis te loolu amul je mhm. désolé xam nga donc mu ngi ça prouve que moom mu dem hôpital ñu koy balaadeloo d'hôpital en en hôpital te loolu pour man bon voilà Sénégal moom war na war na dépasser foofu quoi sànq ñu ngi doon wax problème en fait Sénégal je comprends pas ah. y a des problèmes à tous les niveaux quoi si affaire politique yaa ngi wax affaire justice bu ñu toogee bu ñu accepter a a assumer a assumer et puis traiter tout le monde euh, au même longo à la euh, de, la même façon quoi nga xam ne yamale ñëpp parce que parce que ñu wax ni ñii ni ñoom ñooy faible ñii ñoom ñooy fort donc dañuy mu am euh, inadéquation ci traitement wu dossier yi loolu pour man bon voilà c'est et puis c'est triste quoi franchement vingt ans mhm. comme ça c'est c'est vraiment triste quoi mhm. voilà loolu laa amul lu ma si wax je cherche même les mots xaw sax lan laay lan laay wax quoi yaa ngi wax ay faru. mooy corporatisme bi am. souvent ci métier yi. sangante. lu jiig njaat lu ne ñooy njaat. mais nan nga ko mën a waxee yow fa fa nga njëkkee fa nga mujjee. ba pare ñu facturer la fa ñu ji am comme dette. carte la fa la fa bàyyi après pour mën a. ci mu fa njëkkee ñëw dañ ne duñ ko laal. waaw dañ ne dafa fees mu yendu fa ba 18 heures. waaw ñu doon ko laal da ngeen ko bàyyi mu na fa. diggante minuit ba 4 heures du matin muy xool kan mooy def soin bi. balaa ñu c'est extraordinaire kenn waroon dóor bal. ñu dóor bal. léegi dóor nañ bal ba pare d'accord léegi ñi ñi nga xamante ne mën nañ ko sauver hôpital bu njëkk dem Kantiaro CTO Yacho yooyu yëpp mu dem. principal ba retourné waat demaat fan doog a demaat principal yooyu yëpp ku si njëkkoon a jël am Pastef Pastef si ñoom comme ni ko fan defee au moins doon na tane. parce que fan au moins arrêté na deret bi def premier soin mais xoolal ba 4 du matin ñu lay doog a. def yenduwaat ba waaw mais si xale bu am 20 ans. mais lii waruñu koo bàyyi nii ah. ñoom lu ñu war nee nañu porté plainte wala. papa ji amul yaakaar. parce que moom déjà bi ñu ko defee rapport bi mu demee di yóbbu affaire bi ci gendarmerie Kër Massar ñu ko woon euh, kii bi daf ne ko yëguma ko woon toogal ma xaa mu ne doom ji demal nga indi sa papa matelas demal indi sa papa njegenaay ak ak kii euh, nu mu tuddati couette bu mu sàngoo parce que koy téye bu suba pour enquête bi mm-hmm. doom ji neen kon bàyyi man ma toog parce que sama papa mag la ba pare wérul moom doomam la ñu doomam la ñu jam mu ngi hôpital nekk dans le coma ba pare ngeen bëgg ko téye fii ñu ne ko non dem leen rek ba fi ni benn coow papa ji fa la nekk ba le lendemain à midi ñu doog ko bàyyi mu dem donc xoolal naqar yooyu yëpp nga boole ko non seulement mu bi dem di xaar rapport bi mais ba léegi amul benn résultat am nekk loo xam ne lu métti lool lool papa ji dem dafa wax xam kilifa gu mel toll nii bu waxee ba jooy nga xam ne xolam jeex na peut Sénégal dafa am ñaari Sénégal yoo xam ne ki am doole doole ba mel ni ñun rek dund wereyaan ngay dund vraiment xam nga lii benn cas bu précis la moom la ñuy traité waaw mais dama ni la Sénégal mhm. boo feebaree yoroo xaalis da ngay dee da ngay faatu fa yàlla alors que boo génnee à l'étranger boo ñëwee xaw a am lu la xosi sax balaa ñu lijjanti quoi que ce soit dañ lay faj ba nga ne cocc nga soog a lijjanti loolu tax xale yëpp bëgg dem ah léegi on va dire tabax nañ fii hôpital de niveau 3 de niveau 10 nangam yokk le plateau alors que finalité hôpital lan la faj nit mu ko xale bu bal dëkk si tànkam nga war koo dindi. ba pare a lijjanti looy lijjanti. xam nga gàccale bu ñu demee bay joxe Gambie gii jege ñu exemple. di wax ne am na gune goo xam ne benn waay boo xam ne chaque fois dafay raconté cas boobu. Mhm. fii doom fu ne dem na ci hôpital téyewuñ ko nangam. Mhm. yóbbu ko Gambie benn waay moo ko ne dugal Gambie rek ni mu a nekk dañoo ko ba pare. Mhm. mu leen di laaj nangam ñu ne ko non lii c'est gratuit. lii jël xo nekkuñu fa alors que fi mu jaar yëpp lañ ko laajoon laa la wax ni comme li nga wax sànq. jafroon na ko sax pour mu añ dafa kocc kocc fii dajale dajale dajale fii nii ba am dara dem pour wax la fii mhm. soo amul ay cinq cent mille mhm. un million yooyu yaa ngi wax léegi moom déjà facture bi la un million et quelque un million doy na waaw un million et quelque ci koo xamante ne après dafa mujj ñàkk bakkanam te ci yow la njëkkee nga négligé ci yow la njëkkee non si c'est kenn mënul wax lépp dañ leen di masawu déjà ñu masawu leen bu a baax parce que lu metti la parce que xale bi xëy na ëllëg mënoon na mën na leen dimbali parce boo xoolee rek mm-hmm. atmosphère bu ñu nekk nga xam ne ñii euh, bon yaay ji nee xale bu am yërmande ndeysaan day raxas ay oto mais bu wàccee lu mu am kott kott ñëw yaay am tant am ndeysaan moo tax bi mu demee def leen def leen choqué daal nañu porté plainte déjà mu ngi koy wax pourquoi ñu tirer. Mhm. avant ñu tirer am na lu war a jiitu est-ce que def nañu sommation yi ñu waroon def nañu porter plainte foofu porter plainte hôpitaux yi ko defee ñu topp kaar bi ñu ngi lay jaajëf xam nga ñoom ñu ngi porter plainte sax mais Aïcha ñoom dañ ci dul am yaakaar parce que xam nga comme ni ko kii waxee rek affaire justice dafa doon loo xam dafa doy waar kii la war a nax booy jooy bu la tooñee fan ngay jooyee moom la ñu xamul. mais am na nga xam ne cas yi rek moo leen moo leen tax a jóg. nañ ko waaw mais nañ ci jàpp na ci ñëpp jàpp rek famille Pa Kandji mii si parcelle euh, famille Pa Kandji Kër Massar El Hadj ku fa dem man ko dimbali pour yëfu doomam yi mu leer naññ parce que metti na leen dañu boole naqar ak tooñ bu ñu leen tooñ ñu perte seen doom. mu nekk loo xamante ni mu jóg jël dossier bi dimbali leen waaw. ah maître Soumaré maître jàppale leen ñi parce que ñi dañu soxla ko leen dimbali. Amnesty International section mhm. waa RADDHO ah, appel la mu ngi noonu Aïcha na si ñëpp jàpp di masawu Pa Ibrahima Kandji bu baax a baax ak waa kër gi jëpp démb bi ñu fa demee ni ñu leen fekkee ndeysaan sa yaram dafay daw parce que ñàkk dafa metti tukki rek saga moom moo metti masama dee ñu ngi leen masawu bu baax a baax di leen jaajëfal yéen itam lépp loo xam ne yéen a ngi koy dund numéro boobu si bas écran bi bu émission bi di daw si ngeen ñu woo bu ko defee dañuy ñëw ànd ko ki lépp ne xew na seen i gox di leen jaajëfal bu baax a baax Aïcha di jaajëfal ñëpp di jaajëfal vraiment euh, vraiment business mu Serigne Saliou Parcelles Assainies unité 2 tey moom moo génn fii ci accessoires yi macha allah defar ba mu baax. maa ngi koy jaajëfal baax a baax vraiment. il est joignable au 77 976 30 95 bu ngeen woowee vraiment business mu Serigne Saliou maa ngi lay bëggee bu baax a baax accessoires yëpp moom moo koy joxe jaajëfal naa leen rendez-vous incha allah. Euh, mardi. Aïcha xol bi dafa jeex fi mu toll nii <laughs> Aïcha dafa bëgg a toog. la jaajëfal Pape Ousmane. Euh, Pape Malick. ok d'accord ba vendredi prochain. vendredi incha allah merci beaucoup Alassane. merci Weuz jaajëfal leen euh, jaajëfal à toute l'équipe matinale jox daje ba altine incha allah d'ici là portez-vous bien et passez d'excellents moments sur la 7TV.